ngi sant bu baax a baax. dinañ Demba képp. moom la ma yàlla booleel mu invité ma. ma sawar a ñëw ngir magam. Mhm. parce que bu ko mag moom du ma invité. mais xew bi xewu Baye Demba la man moom ma tax a ñëw. du kiy takk di ku ñuy takk du mbay géey Baye Demba moo ma tax a ñëw. mais ci kóllëre man ak paa bi. Mhm. ndax bi ma nekkee xale daf ma nampatal tabe. nàmpatal ma bëgg Cheikhu Tidiane yi te jurut ma su ko nekkoon du ko def waaye dafa jàppoon doomi jàmbur yëpp ñuy doomam moo tax dëj bi bi ma ñëwee dama dem ñu jaale def yëpp ma dëppaat dem Ngàmbi ma ñëw kóllëre boobu mu rafet suma ma diggante ak Baye Demba du xaalis nag su doon man rek kii fande na bu yàgg solul su ma yëree lekkut su ma xaalis mais dafa ma bëgg te yàlla tax loolu moom ma fi andi da nga sama jigéen sama xarit Nabou Zo comme li ma wax rek moom li ñu bokk dafa bari ndax sama baay ji Alaaji Ibra Sëñ moom doom la woon ah mu bëggoon ko bi ñu gisantee nag kóllëre googu mu fàttali ma ko muy ku baax nag di ko gore jëmm ji taxaw nag boolewul ak dara ki wax te nag nan dem ba ci kanam ndax euh, Sénégal gi ñu ne dañ ko jox bopp muy ku baax nit ku baax la ni nii nga ko gisee nii nii rek la mel tey nag sunu doom ñu naan ko kinne kooku tey bés baayam bàyyam doon ku baax di kilifa ci réew mi tey boo seetee tey ñëpp fi daje ah ba li gën a neex tey dañoo dugg tey tey dañuy taalibe seex ñuy sëyeeg ci biir famille kon yàlla jàmm yàgg na sama waay gi sama xarit bi li nga xam ne moom moo di parce que gënuma intelligent nit ñi dàquma leen wax mais lu ma def mu saf nit ñi baatin la dama cee toog ba di fayu ndege suma ma dóor ma delloo ko rek sotti non ma sama fu wa non I don't care mais ci loo nekk mais ci ci belle comme ça xam-xam ne euh, sa doom la sa rakk la sa lépp la euh, di Kiné mhm. noo ko dundee waaw laa am contentement man famille bi duma fi doom laa fi rakk laa fi ki ne sama rakk la parce que yaayam mooy sama première njëkke tamaam man mooy sama première njëkke ba pare nekk sama yaay ah, caana di sama see Mbaye Dieye moom ñëpp xam nañ diggam ak sama sama borom kër donc dama fi ñëw ñaari ñaari yoon ñaari cër sama cëru bopp ak sama cëru borom kër parce que dafa waroon a ñëw waaye dafa ñëw ba Sénégal ñu woo ko mu liggéey mu delluwaat. a ngi tukkal jamono ji rawatina clip bi waaw kontaan ah, comme ma wax rek man moom. mais polémique clip bi Aïda. waaw polémique bi bari na te man damaa jaaxle mais bon. <laughs> mais bon munoo si ah, Sénégal lañ nekk. wax nañu influenceurs yi ku ne kenn maanaam ñoo yëpp parce que lii bu dee mooy dàllinkoor yëpp ñu la yow nan ngay dundee kóor. il faut man dama ne woon du ma si wax parce que je pense ne. man dépassé naa étape boobu mooy étape bu Dalingkoor fi mu toll ñu ngi ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci leneen mais juste di wax sénégalais yi rek ñun clip bi bi ñu ko doon def euh, le concept c'était juste pour montrer exactement li nga xamante ni loolu la suñu yaay yi doon dund ci biir euh, ci biir euh, kër yi donc néewuñu ñun dañu valoriser loolu ba nit ñi di ko dund ci seen biir kër non non dañ koy dañuy wane.